ca mi ngi noonu mbokk internetu Dakar Buzz comme ni ñu ko àndee woon ak yéen rek euh, indil leen li nga xamante ni moo euh, daal di xew file ci monument bi euh, la gis ngeen ko sénégalais bi yëngu nañu xale yi ñëw nañu supporté nañu ambiance yow am na jàmm am na yàlla def na Sénégal gagné ci jàmm ak salaam comme ni ma leen ko waxee woon 3-0 la noonu doon 1 bi nag mënul ñàkk li tax ñu def 3-1 mooy ñun ku ne xam na ne suñu diggante Guinée teraanga rek lañ seq ak ñoom koko ji bàyyee nañ leen ko banaana ji bàyyee nañ leen ko pomme jeeg orange ji bàyyee nañ leen ko soccu yeeg guro yi lépp nag yëpp teraanga la kon nag du ñu mën a euh, def rek lu dul may leen benn bii bi euh, ñu daal di ko xandaaloo dalal seen xel waaye matt bi 3 la la doon nekk ayca ba tey waaye am noonu laa koy jaajëfalee lu bare bari booy maa ngi xaar ba nga jaar ni eh jaara ne ayca mi ngi noonu waaye am <laughs> loo caméraman xam ne fu mu dem xuloo fa lii ba am kañ ngay ayca <laughs> mi ngi noonu <laughs> ba bu dagg maa ngi xaar ba nga dagg sama wax ayca mi ngi noonu waaye am comme ni ma leen di jaajëfalee lu bare bari waa salon taaral gis ngeen ko maquillage bu yanj bi ñoo fi daal di jaar ak man ah, monsieur et madame Diop maa ngi leen di jaajëfal gis ngeen tey nag coro moo ma daal di defal maquillage bu yanj bi nee leen daw leen ci Brioche Dorée bu mariste bi eh, di ngeen gis salon taaral ñu defaral leen ba mu yanj waaye nag mënuñu ko fàtte benn benn yoon moom mi nga xamante ni tabarkàlla mooy eh, mbooro business gis ngeen ko nee naa leen mayo yanj ñoo ñu koy jox foogoon naa ne ma am waaye gis ngeen moom tay yëpp lay liggéey ayca may fii Dakar Buzz bu yanj ci ginnaaw am Malika moom technique bi euh, du ma def rek lu mooy daal di dugg ci biir xool ambiance bi ñu laalaat ci tuuti waaye tamit ay ca mi ngi noonu Babacar doomu Saalum gi tey nee naa leen moo ma génnee fii ci dàll borom Colobane xale bi nga xamante ne nee na guddi guddi Saalum am jom lool nag teel a xëy guddee wàcc mais match bi booy kan moo dugal Ismaïla Sarr ah? ak eh, waa def leen ndànk rek def leen ndànk Ismaïla euh, Famara Diédhiou moo njëkk a dugal Cheikhou Kouyaté dugal après Ismaïla Sarr dugal waaw Sadio Mané maye woon na benn mais daka bàyyi <laughs> mais Krépin maa ngi lay mais Krépin ren foo ne mais sénégalais dafa ne la Krépin génnal xam nga yow yaay star réew mi waaw. avec euh, une possibilité d'aller à la séance euh studio pa un zéro un zéro un zéro am Sénégal dugal na am jëlal boy yi am jëlal boy yi am jëlal boy yi ayca Sénégal dugal na am maa la lay jëlal jëlal maa la lay moom ayca mi ngi noonu mi ngi noonu Sénégal dugal na Sénégal dugal na macha allah léegi nag war nañ leen tey tey waaw waaw kontaan naa kañ 1 kontaan rek. ayca wéyal ñu bajo bajo bajo yee. seen baay ñëw na. équipe Sénégal. Sadio Mané. Ah, Parce que c'est le but euh, de réussir à, à, donner un bon ballon quand même face à, à de début dans profondeur. C'est la chance de le ballon. Ça va manier rester là. Ça va manier, ça juste qui se passe. Oh oh ma ne Sadio Mané passe bal bi tabarkalla ndaamale ci réew mi ñu koy ñaanal gudd fan ak wér mooy numéro 10 Sadio passati na Saliou Cissé mi ngi noonu ba tey oh, añ nañ bal mi ngi noonu mbir mi noonu la mujj demee ay ca ba tey di leen rek mbokk internet Dakar Buzz ba dooleelam oh! eh mais Gallo loolu lan mais Mané il est bien Mané il est bien rek instant bi ñun nga pare quoi mais final bi lañ sena final bi wuy ma ñun dañoo gagné ba pare mais instant bii dañuy préparé final bi quoi dañuy échauffé wu échauffé wu. final bi ngeen di préparé. waaw dañuy échauffé wu échauffé wu. gars yi doon yuuxu léegi. waaw dañuy bi échauffé wu pour si final bi donc. dëgg la waaw men. waaw merci Aïcha ah, mi ngi noonu comme ni ma leen ko waxee 1-0 Sadio Mané liggéey jox Famara Diédhiou la su jumul Famara Diédhiou la ah. mu dugal bal nañ dem xooli joolaay ci am topp ma. Sané ñaata ñaata match bi ñaata ñaata gañe rek ndam rek ndam final la ñuy jëm de ñun ren lañuy jëm ma ne final la ñuy jëm wax gi mooy bëri rek mais bu soobee yàlla ren suñu ren la waaye sa verre yi foo ko jëndee commande la commande la commande boo ko commandé commande la commandé du waay Dubaay. waaw. Oh. Eh, ku la ku la ko Tamba moom la moom la Tamba. Eh, président bi ñaata ñaata match bi nga yaakaar. deux zéro la deux zéro. ayca ñu fecc oh. ko tey ay mayo yànj la ñu jox ñëpp daal di sol xam nga ne man sama taay yombul moo tax dama koy daal di gërëm bu baax nag ndax gis ngeen foogoon naa ne sax du ma am waaye liggéey na ma ba ma am xam nga man sama taay yombul Amadou mi ngi nii Mboro business tabarkàlla nee naa leen drapeau yëpp ñu ko jox gis ngeen bracelet yànj yi ñu ko jox yi ñu takk ci bopp ak yii nii ñu daal koy maye rek ah lépp ci Mboro business xam nga ah, man sama taay foogoon naa ne sax du am waaye am naa. ayca mi ngi noonu euh, Malick ginnaaw bi nga xamante ni football nañu 45 minutes. waaye daal di dem li nga xamante ni moo di mi-temps euh, la gis ngeen ko bii bu rafet daal di fi dugg euh, Sadio Mané moo ko daal di liggéey parce nga xamante moo di Famara Diédhiou mu dugg ay ci supporter yaa ngi nii ah supporter yaa woo woo euh, moo di Mboro business gis ngeen ko Mboro business moo ñu jox yi daal di ñu solal maillot yu rafet yi bindal ñu Dakar ba ci ginnaaw foogoon naa am mais am naa Aïcha <laughs> Amadou topp ma ñu dem daal di gisanteeg supporters yi tabarkalla comédien bu mag di tonton Kader Pichini Nico. oui <laughs> mais tonton Kader ñu ngi lay fay. naka nga gisee match bi. Euh, match bi en fait pour la première fois Sénégal commencé ñu am su amuñu stress boobu parce que tey football nañ tey gis nañ ni vraiment ñoom bëgg nañ mouiller la maillot ils ont mouillé le maillot ah, tey football am na. lenn rek la ñu waroon def mooy tuer le ñaar bu ñu amoon ñaar premier mi-temps deuxième mi-temps bi moom kenn dootul sonn. xel day dal xel day dal bu baax a baax. ni ñu ni bu ñu ko yeggalee nan nga yaakaar ne match bi noonu lay mujjee. non non non mën nañ ko mën nañ ci am dara moom vraiment tey football bi ñu football mën nañ ci Euh, Guinée équatoriale équipe bu taxaw la bu dëgër la franchement waaw. noo gisee Sadio Mané. non Sadio Sadio c'est un patriote la laa doon wax kii ne loolu may yàlla moom lu am may yàlla yàlla dafay choisir ay nit may leen mais yàlla na ko yàlla gën a may waaw même bu dee pour moom kese sax yàlla na ko yàlla parce que cœur bu muy jox pour ñëpp rek dañ ko ko war a delloo ñun suñu bopp waaw. mais xel yi tey ñu bàyyi affaire 2002 affaire na nañu nañu wax lii naka nañ jëlee coupe ñu bàyyi ay yeneen yi nañ def nii euh, euh, mérité nañ ko génération bi mérité nañ am coupe nañ bàyyi waxu 2002 nañ nañ jàppale génération bi ñoom ñu am coupe. mais am nga yaakaar coupe bi dina ñëw. waaw bu ñu continuer nii war na ñëw waaw. cumbukaay itam dégg naa ci jàpp bu baax. Euh, waaw yuuxu yi waaw man maa ngi yuuxu rek. <laughs> ah rey ñeenti nag génne ñeent fukki tablette nag. juróom-ñaari yoo laa rey balaa ma leen rey dama leen jooyloo jël seen rongoñ sangoo. <laughs> sax ci tànk. jërëjëf. ayca Amadou topp ma ñu xool supporters yi ci biir. drapeau. ma may la drapeau. waaw wax mais ngi bi ñu ngi lay si jàmm. yàlla bu baax. naka nga naka nga gisee match bi. xanaa kanam. mais yow sa mbaxana lan la. sama mbaxana mi. mais bii nuñ ko defaree lii daa mel weñ la. non kawsu la. ah kawsu mooy mbaxana yooyu ñii maçon yi di sol moom laa dem ko quoi voilà léegi nag ma sol nekk Sénégal. yaa ko créé laa la daa mais jëlal kii dafa sañse mais waaye sama sañse rek xalaat pour rek. mais sañse daal la Amadou jëlal daal yi lii la la jëlal daal yi. mais <laughs> sañse bi moom ak Sénégal lépp. tuddee nga waaw waxal tuddee nga ko Dakar Buzz. tuddee naa ko Sénégal la waaw Sénégal ak yow. Dakar Buzz. ak Dakar Buzz voilà. Dakar Buzz. Dakar Buzz. waaw dak ah, Dakar ah Dakar Buzz. ok tuddee naa ko <laughs> topp ma ba naka de. maa ngi fi. yow waa fan nga. Casa Sport. Ah? wala waa fan nga waa Dakar wala Casamance. naka nga gisee match bi tey. match bu baax a baax Sadio Mané mu ngi def lu mu mën. kon yow Sadio Mané ngay supporté. waaw moom laay supporté équipe yëpp nag. équipe nationale yëpp sedd na guy guy Nicolas kontaan naa trop. waaw yàlla ñu yàlla may ndam nañu yàlla may ndam ñu door ak Guinée Équatoriale 3-0. merci beaucoup macha allah merci. man nag Guinée gi li ma jaaxal Amadou mënu ma na ayca Amadou topp ma ba tey ñu seeti fan <laughs> moo dugal bii bi seetaanu ma ko gisuma ah, fi nga waaw mais da ngeen waroon fi ngeen toog ñu dafa gàtt waaw duñu gis bu baax mais am ngeen yaakaar coupe bi dina ñëw euh, nga xool nga waaye Sénégal ngay supporté may la ci benn drapeau Aïcha mi ngi noonu comme niñ leen ko waxee xoola gaa yee ngi nii gaa yee ngi nii mais grand kontaan ngeen man soo soose nga <laughs> waaw waaw nga kontaan waaw waaw noo def sëñ bi ah ma ne na nga def ah a baax ah. paas ah ki nga paas ah boobu damaa yéexu ndax xoolal ma ko sax ma. Aïcha mi ngi noonu Amadou topp ma xoolal lii ndeysaan sénégalais yi dañoo baax Amadou xoolal waa ji ndox la jënd di maye ndox. grand na nga def. maa fi rek ça va. kontaan moo tax ngay ndox. non chaque jour nii laay def. chaque jour da ngay maye ndox. waaw chaque jour damay maye ndox Sénégal xaalis bi. ñoo fi nekk ñoo yor organisé porte bi quoi. yéen a yor waaw. Ah, da di maye. ndox chaque jour. ñaata ñaata nga yaakaar. non deux lay mujjee. un zéro waaw incha allah. merci beaucoup. eh wala match gratuite la. crème bi. ah boromam dafa mel ni de. mais grand. waaw. eh. <laughs> match. nu mu tudd kële de booy booy jàppale ma jàppale ma. ku dugal yow da ngay laajte. waaw fi. match bi ñaata ñaata nga yaakaar. waaw match bi ah, daal mo amagum mais ñu ngi ñaan yàlla ñu dugal beneen bii yeneen sax yeneen. dégg naa sëriñ bi ngay envoyé nii whatsapp nii. man waaw. non sëriñ bi ngay waxal nii. sëriñ baa ngi nii. yaa yor xool. yaa dugal victoire. yaa dugal man. bii ku ko dugal. bii bi Famara Diédhiou moo ko. kan moo ko paas. Ismaïla Sarr. maa def bal bi man la man. waaw eh, damay dolli beneen damay dolli. waxuma loolu nga ne ko dugal bii bi. faa ma ne jéeju moo dugal bii bi. moo ko paas. waaw non non non damaa juum Ismaïla Sarr Sadio Mané damaa juum xam nga saa bi maa ci machine maa ngi liir machine bu baax topp ma. yaa ngi en direct Dakar Buzz. waaw waaw waaw. waaw 1-0 la pour l'instant mais mu dee ngeen 1-0 baax na 2-0 baax na 3-0 baax na nu mu mënti ne dañu gagné rek. kan moo dugal bii bi. Famara Diédhiou. kan moo ko paas. Sadio Mané. ah loolu neex na. on est content aujourd'hui on est très content aujourd'hui. tey loolu dëgg match la. waaw Guinée Équatoriale la. yow maa la tane. Guinée Guinée lan. Guinée Équatoriale. Guinée Équatoriale. Comme dans Bricode. Alors nous allons enchaîner avec. Euh, waaw match bi ñaata ñaata la. waaw match bi instant bi 1-0 la. kan moo dugal. Euh, Sadio Mané moo paas. waaw ku ko dugal. waaw bu muy dugal boobu moom dama génn. waaw fekkee nga paas. waaw fekkee naa paas bi mais bii bi fekkee moom. grand mère Omar. ok jaajëf. Eh, eh, kay. fii bee. ayca aw lekk nii. man crème. ñaata nga jëndee. 100 kan moo koy jaay. dama dama nekk fee. ku nekk. maire bu nekk fee toog. fan ñooy football tey. moom Guinée Equatorial. Guinée. Guinée Équatorial match ñaata ñaata la 1-0 kan moo dugal ku dugal eh, <laughs> noo def ça va Sénégal ki muy dajal kan la Guinée Équatorial ñaata ñaata 1-0 kan moo dugal Famara Diédhiou ku ko paas Sadio Mané waxal wooy naka def sëñ bi sant sant bu match bi ñaata ñaata la. 3 0. ah 3 0. 3 0. incha allah moom moom la ñu amagum. 3 la ñu am dañu am dañu am 3 ah, incha allah dañu am 3. waaw Sénégal ak fan la. Guinée Equatoriale xaw ma xaw ma kii du xam sax bravo. eh jërë booy yow Amadou. na ngeen def. sant yàlla bu baax. di sant yuuxu leen. non non non <laughs> même pas. na ngeen def maa ngi fi ku dàqa yuux ma may ko dara sakiru madara kadado ay rakki sakiru ma leen dem ñoo ngi si ku leen ma xool ah! na nga def deux zéro pour Sénégal waaw Sénégal deux zéro la amagum waaw et eh, Amadou ana nga am sama caméraman bi yàlla. Guinée équatoriale la. Guinée équatoriale. waaw. lan moo dugal bii bi. <laughs> je vois pas ah, je viens d'avoir une place. j'étais tu si damay wax alo. <laughs> am nga fit. dara loo nga cee. <laughs> Aïcha mi ngi noonu. waaw koñ bee. bàyyi leen seetaan seen na kan moo dugal bal Famara Diédhiou kan moo ko paas Sadio Mané Sadio Mané ah bon waaw kon ñu ngi ci 2-0 waaw ñoo ci 2 waaw nañ ko jàppee am suñu gaynde bee ngi nii gaynde ziar nañ la du wax da day li ñaata ñaata un zéro ñaata lay nekk da ma xool xiirul ma xool Messi gagné et eh, madame yes yes ayca mi ngi doonu mbokk internetu Dakar Buzz comme ni ñu leen ko waxee monument yëngu na gars yi découragé woon nañu man sax tàmbali woon naa nelaw waaye dafa mel ni gars yi yeewu nañu ndax dugalaat nañ deuxième bi léegi nag kan moo dugal laay lijjanti gannaaw ku dugal dugal. Cheikhou ku dugal ba. Cheikhou Kouyaté. jéeg yee dugal waa réew mi naka am fi ñaari jabar am na solo Cheikhou merci. troisième fille troisième fille troisième ayca mi ngi doonu mbokk internet Dakar Buzz waaw mi ngi doonu tabarkalla am nañu eh Amadou ja Amadou jël ma fi Amadou Amadou eh ñaata ñaata trois trois ñaata trois ñaata ñaata trois ñaata ñaata trois Sénégal ak fan hein Sénégal ak kan Sénégal ak kan ak kan ñooy daje Guinée Équatoriale waaw waaw loolu ah bien sûr mais gara ñaata ñaata 3-1. ñaata nga yaakaar ñu doon. 4-1. ayca kooku nee na 4-1. ayca Amadou mi ngi noonu. waaw mais booy. booy bas bi neex na. mais booy bas bi neex na ko. booy sama xol bi sedd na. mais booy ñaata ñaata sax. booy 3-1 booy. waaye kana kana dugal. Euh, saxu Kouyaté. non demal ndànk rek Cheikh non Cheikh Kouyaté. jaajëfal lu bëree bëri moom Mboro business gis ngeen ko nee naa leen mayo yañ yi ñu sol ak drapeau yi ñuy maye tey moo ko daal di joxe waaye bu leen fàtte ni monument bi sànq xale bi daa tourné joxoñ côté Médina papa ji xool côté Patte d'Oie yaay ji yëngal bopp bi dañoo kontaan dañoo fier ci sénégalais yi dañoo kontaan ci joueurs yi waaw ayca jóg leen waa nee na ngeen jóg leen jóg leen ayca leen daa mel ni match bi jeex na une minute moo ci des. une minute moo ci des Sénégal door na Guinée Sénégal door na Guinée 3 1 1 bi sax xam nga ñun sénégalais danoo xam kóllëre xam teraanga baax lool moo tax ñu may leen 1 bi seen ñamu bët la waaye mën nañu wax 3 0 Amadou Ndama caméraman la àndaloon ci technique bi ay ca tabarkalla ambiance bee ngi nii nee ñu ngi monument de la renaissance Amadou bi sama bët moo ma may xale bi Medina la joxoñ papa ji jël bopp bi tourné ko côté Patte d'Oie yaay ji yëngal bopp reetaan ndax xam nañ ne tey gaynde yi danoo football Amadou monument bi yaa koy gis gis nga loxo bi Amadou yaa ngi gis baaraam bi tourné gul sax ba tey mi ngi joxoñ Medina ayca yal na yàlla ku del seen fan yéen ñëpp seetaan Dakar Buzz ayca mi ngi noonu une minute moo ci des match bi tas supporters yi jóg xale yi kontaan nañ drapeau yaa ngi ci kaw ñëpp bég nañu. Sénégal door na Guinée 3-0 ñu ne 3-1 1 bi nag njukkal la rek buñ dellool waa Guinée ndax suñu diggante Guinée ku ne xam na ne dafa foor danoo bëgg Guinéen yi nee leen moo tax ñu yaatal leen koko Guinéen yi jaay banaana Guinéen yi jaay soccu Guinéen yi jaay tàngal mint jeeg mant ci Guinéen yi jaay ay ca match bi tas daañ génn dem xool supporter lu ñu wax